doom yaay ci waa waaw delloo siyaar naka yitee nag li la fekk entraînement la demee gaan mm-hmm. bilaahi nekk ci waajales bi rek mm-hmm. comme d'habitude waaw mm-hmm. coow li bari na waaw noonu la foofu coow li bari bilaahi ndax làmb la quoi mila la làmb mila waaw mooy loolu foofu coow li bari aada guy gi aada guy gi la woon fa woon ndox du bàyyi rek démb biñ dajee waxante ñoom ñaar nga gis état wu guy gi gis état wu waaw guy gi champion la dañ koy nangu lu mu doon mais rek waaw dañoo am suñu mbër ko waaw wóolu ko xam lu mu mën waaw xam nañ jàmbaar la ak lu mu entraîné waaw kon ñaan yàlla yàlla moo ci des quoi ndax luy xew suba kenn xamu ko yàlla xam kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla suturaal ñu may ñu ndam bu rëy mais démb waxante bi aada ñi mën a guy gi waaye guy gi tamit ñi mën a aada waaw noonu la lamb stratégie la quoi lamb moo baaxee noonu léeg-léeg yi te xel waa am loo sandi sànni xaw ko cuqu nii waaw ñu xam nañ mbër mi quoi waa mais guy gi na waajal rek dañoo soxla de noo gisee aada xel dal na wala waaw yow suñu xel bu daloon aada dañuy doo doo gis ñu ñëpp waa xel moo dal quoi moo di ñëpp ñëw wuy si ga mhm. waaw ndax lan la aada na bëgg na bis bi waaw moom moo ñu gën a bëgg bis bi nag waaw ñun li ñuy daj yëpp saa bu ñu gisee man li may daj man saa mu gee dama ah njaago yaay sonn mais dinaa gën a sonn ndax yow mhm. waaw démb rek dafa ma ne làmb ji sa la yow laa koy bëreel mhm. voilà kon yow la may man la may bés bi te bés bi maa ko gën a bëgg man bés bi du diis ci àll bés mënutul diis suñu kaw mënatul diis tey mi ngi doog am adversaire bu potentiel bu mel ni guy gi. waaw Zarko ka moo ko gën a métti si àdduna Zarko mbër yi ko gën a métti si bëriwul Zarko ñu ëpp fit si àdduna bëriwul. waaye guy gi rek moom waaw guy gi la nangu leen nga jàmbaaram de mais bu incha bu tey soobee yàlla suñu borom ndam li faas lay ñëw waaw ah non xaar nii saa bii kekk la ne fi bonde de. mais même démb tamit liir bu ndaw bi la liir bu ndaw bi. démb tamit mu ngeen am jàmmarloo waa jàmm gën yéen ak ñoom liis jàmmarloo bu méttee méttee métti seen digganteeg waa jàmm gën lan la. loolu jàmmarloo sax dañu bëre ñoo moom duñ sawar a wax sax ci ay booy liis ay affaire yooyu noonu waaw ndax ñëw nañ buum yi am nu ñu def ak ñun ndax ñun moom dañ ñu xaw a sonal mm-hmm. waaw mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. dañuy maamu leen dañ leen a dàqa ji ngeen daw. mënuñ booy mënuñ ñu dàqa ji jël seen i moto xam nga mënuñ jël suñuy moto jëluñu suñu benn moto Fass Fass amul amul kenn ku fi motoom réer boobu maanaam soo ràccee Fass ku fi réer sa moto xam naa ñeneen lañ jël quoi maanaam jaamaaloo dina am mais bu la tarantee waaw léppay leer quoi. jàmbaar du ci ay yoon yu lëndëm ngay sànnante xeer këjëng këjëng jàmbaar ngeen taxaw jëflante kon yéen ñu lenoom lañ doon sànnante yéen xeer non ñu ngi doon waaw xaw ma fan sax non ngeen yéeg pont bi mooy loolu wax baaxul sax ñu gën daal teg nañ leen non ñun leen ñun duñu wax waaw li ci kanam raw na bët leen booy faas yi dañuy dell seen yaram ci tekk buum yi amaa na buum yi ñoo ñu xaw a sonal rek ba sëñ Bamba mais yàlla bëri na sutura nee nañ ngeen delli seen yaram di simb ak yooyu loolu loolu après la ño sane guy gi mooy suñu priorité guy gi la ñu am mais léegi seen dajeeg yéen bu ñuy waxal lan la ñuy waxal. mais yéen yéen ñaar lan la aada lan la. non du dara gis nga nit nag teg bët dafa am te lii daf ñoo teg bët te ñun ñu ñun ñu daan ñoo ko daan ay Tapha Mbeur ñoo ko fi jàpp dóor ko fi mu daanu boppu gëléem la yor boo koy dóor muy wàcc yaa ngi kaña kaña booy fëgg ci bopp bi muy këpp te du dara. gërëm liis lan la boppu kaña la yor boo koy dóor muy gëlëm gisoo poxalaa ku la ko dóor mu lemu foofu noonu mel ni jaan. dafa mbër dóor ko Iberguine mu laxasu moom day laxasu moom xam naa wet bi moom bëgg na wet lay daanoo day néew Liss du dara de barki yàlla ah, moom day xaw a kii nii rek waaye coow li mënu bari ndax bëre ñoo ngi moom mhm. waaw loolu la ko waa ñun bëri la ñuy bëreel mais ñoom ñoo bëgg di forcer mhm. góor oo forcer ay eh, xar ba laa mu booleen nga bëree mais li ñuy def nii kon forcer la mais ak Liss ak Liss waaye du ñu wax si Liss lii duñ ko may code kooku du dara nee naa ko du du Liss du nekkul Liss de mise da ngeen juum ba ah, miis la miis. ah du liis miis la. miis la miis daa war a di jaagar moom loolu la mën ay jaagar jaagar ay dox wax waaw miis la quoi du liis njaago miis njaago la waaw noonu la demee nag. <laughs> mais kon daal fi ne pare la demee instant xaay na ñu ngi ñëw. mais boobu da ngeen cee bokk ak ay ndaanaan de. waaw liis njaago fii ay jàmbaar bul wax ay liis njaago de. ah liis si bis njaago baari baari sax moo gën a jàmbaar. non lii say bëri ñëw ëndee gàngooram. sëll bu ndaw bi. waaw mais ngi ñaanal giri ndam bu rëy. Eh, doomu taawu dina dem di. waay mooy loolu. ama sama mbërë de giri eh. la. nga jiite ambiance la woon fa woon ndox du bàyyi yoonam. day mbolli mbolli di zembere zembere rek. bii du gars yi ay Mbappé ay bi Mbappé bi liir bu ndaw bi Mbappé. xale bu wow kongu dëgër këcc moo ngi nii waaye yow bi day mbooli mbooli gars yi nañu xaar de. mais aada aada daa am nu muy ñëwee daa mel ni de aada. aada support bi koy topp buy dugg si bu bees taax mooy ñëw aada bu bees taax. Ah. làmb ji du làmb wax ko waa làmb ji làmb jëf la aada ba ñëw pour confirmer ñoo soxla Dakar moo soxla jëluñu sax làmb ji pour daanu. entraînement da ngay dagg ticket. sa waay la càmbaar ji moo mel nii. ñaata ngeen di jaay entraînement téeméer lay jar nii xoolal fii yëpp. boo da leen jaral boo ne woon taw bo indi taw kon maanaam amuñu lu dul waaw mooy loolu quoi day ñaan yàlla rek li mayam yàlla la boo xoolee ndax bërëre bi jàmbaar la Ada Fass góor bu dëgër këcc waaw nee na leen ñi may ñi ne sama ginnaaw amul ragal moom xam na ko quoi kon ñu mënuñu nekk ragal bu ñu ragalee rek tooñ Fass lañ dëkk de bi tuur moo gën drapeau bi cuubu xoolal entrée bi saa ngi ñëw la ngeen jël aada ci biir mooy ñëw ak lépp jàkkaarlu Moustapha Gueye garitu xale bi moo doonu Mbaye Gueye Tigre de Lamine